ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkalwaat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam ni moom moo di actualité lu jëm ci réew mi rek mbokk yi nañ leen ko toppat rawatina tey mbokk yi jëmm ji nga xam ne moom la ñu dalal tey bu ñu ko waxee nee naa leen naam miin ngeen ko suñuy écran waaye li muy génn tamit bariwul ndax bu ñu ko waxee daa doon li mu doon nee naa leen bu yemoon ci maam Cheikh Ibrahima Fall sama maam rek doy na ndam ci réew mi waxantuma nag mu daa pare pour ñëw dimbali yenn jaamu yàlla yi dimbali yenn nit ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe te ne ci kaw suuf mu bëgg leen a dimbali ndax kat jaayante lay def ndax maamam nee na daa jaayante ba am li mu am. mu woolu ma tey ne daa am lu mu gis ci réew mi bu ñu waxee lu mu gis ci réew mi war a waxtaanee lu bare bare bare bare bari ci réew mi bu ñu ko waxee tey nag ni ma ko fekkee maa fekk mu jóge ci ñaar fukki fanu koor jóge njaareem ca ndogu ya tey nekkoon dernier jour bi mu jóge alxames ñëw. li mu jëlee nag njaareem lañ bëgg a xam ndax def na ray nay gàtt berneel na jaam ñi ñu war a waxtaanee lu bare bare bari mu jóge njaareem rek ñëw ne daa bëgg def émission lu mu gis lu mu gis ci réew mi. mbokk yi xaaral ma bàyyi leen ko mu nuyoo ak yéen muy Serigne Moussa Fall mu innu maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi delloo ziar baa makan di la nuyu di fay sa mbokk internet yëpp di leen nuy ku nekk fa nga nekk rek naa la nga toog ma jox la loxo. tan ni la asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp nag di sant ñëpp waaw comme ni nga ko waxee nag yàlla def na ni ndog yi moom jàll na ci jàmm ak salaam ñu jógee Jurbel ñëw gis nag loo xam ni ci réew mi dafa doy waar moo tax ñu ñëw woo la téléphone ne dañoo bëgg a def yow émission wax nag loo xam ni moom ku ñu xam moom xam ne moom kenn mësuñoo yóbbu vaar ñun ndax lépp lu ñu la wax teg nga ci sa bët moo tax nag tey ñu ñëw war a defanteeg yow émission boobu bisimilah. lépp luñ la wax teg nga ci sa bët tongu ne du teew ñuy netaal te naar yaa ngi naar yaa ngi nii. ñu war a bàyyi leen mbokk yi ñu dem vaar ba pare daal di ñëwaat ngeen xool li Serigne Moussa waxoon ci li nga xam ne moo di élection yi wax ko ci jobaay ju dem vaar ñëwaat mbokk yi. ayca sëñ bi mi ngay wax loolu foo ko tegoon. waaw dama toog ci lu wér seet ko ba gis ko moo tax ma woo la wax la ko sëriñ si nag ñu bari dañoo waxoon Amadou Ba mooy gagné. waaye man bi nga ñëwee lan laa la wax su nañ moytu suñ sàccut élection yi de jomaay mooy jël réew mi te na ma la ko waxee woon noonu la amee kon nag ñun ci lu wér lañ toog moo tax ñu waxee ko noonu kon nag loolu moom toog ci lu wér rek ci am solo waaw te te lépp looy gis daal ci lu wér daal na doon loo xam lu wér la loo xam soo ko waxee nit du dañ moo tax nag ñu wax la ko. aal ji kay li tax nga jóge njaareem rek ñëw ne da ngaa bëgg wax ak sénégalais yi bi lan la. xam nga maanaam dañ fee def ay émission yu bëree bari waaye émission yi ma ci def yëpp damaa seetlu maam ñu bari dañ ma ciy woow naan ma sëñ bi yow ni ngay waxee kat nangam ak nangam ma jàpp nag maanaam xam-xam nekkut wax jëf la waaye nag bu nekkee dañoo jàpp ne xam-xam wax la day xaw a doy moo tax nag tey ma ñëw nag soppeeku nii daani damaa bëgg mën a ñu waxtaan ndax réew mi dama ciy gis ñoo xam ne dañoo yoroon ay ndombal tànk yu mag nag yu mag. yoo xam ne dama leen a gis nii ni ñuy jëmee police ak ñëwaat. Hmm? di dem tribinal di ñëwaat. ñoo xam ne maanaam xam naa leen te am na ñoo xam ne maam suñu borom def na ni. Hmm. bi élection yi di waaju jub si. Hmm. am na ñoo xam bi ñu déggantee dégg nañ li leen wax. am na si ñoo xam ne dañuy dem tribunal ak ñëw. te am na ci ñi doonoon président. waxuma président ministre yi laa la wax. Mm. ñi nga xamante ni. ñu baree baree bari laax ci ministre yi. Mm-hmm. maanaam danañ dem tribunal ak a ñëw. mooy ci nguurug Macky Sall. nguurug suñu amul chance ñu bari ci kaso bi lañ jëm. Hmm? waaw ñu bari ci kaso bi lañ jëm. réew mi day soppeeku. réew mi hmm? day soppeeku. te waxoon naa la ko comme que dugal nga vaar bi baax na waaye réew mi moom day soppeeku moom li ma la nii nag bindaatal te teg. du yàgg dara laa wax ministre yu bari ak ñoo xam ne yoroon nañ ay ndombal tànk ci réew mi fii mm-hmm. danañ leen woo am na ci ñoo xam ne maam ci kaso bi lañ jëm te li gën a doy waar balaa avril bi jàll di nga dégg maam coowum xaalis moo xam ne ñoom ci seen biir dañuy tamante hmm? waaw. sëñ bi yaa ngi wax réew maa ngi lay seetaan de. man dama laa wax mos wax luy dañ yow. déedéet lu ma lax te teg ci sa bët. kon nag lii ma la wax teewaatal balaa avril bee jàll. di nga dégg ministre yoo xam ne ak ay ñoo xam ne bokkoon nañ ci gouvernement bi. ñuy woolu ak ñoo xam ni suñu borom def na ni. ma di nga gis ñuy weerante ni ay dëmm. ku nekk naan xaalis coowum xaalis mu rëy ci dëkk bi dana fi am. bindaatal te teg lii man maa la ko wax. waaw. tey tey tey réew mi ni ni ni Diomaye doone président ñu changé gouvernement réew mi nga ne mën naa coppeetu ko réew mi day neex day soppeeku waaye nag comme li ma lay waxoon rek réew mi dana neex waaye nag lépp mi ngi dépendre ci ay sarax ndax am na ci ñoo xam ne tey nii nii jomaay doone président neexu leen ndax façon yàq bu ne ñu ngi koy def am na ci ñoo xam ne ñu ngi waaw nii may wax am na ci ñoo xam ne ci wax lañuy yàq am na ñoo xam ne ñi ngi jëf ndax xam nga ni waaw koo xam ni képp koo xam ne leer na da ngaa lekkoon si réew mi te xam nga ni danañ la woolu da nga fexe yow ba maanaam mën a tëj gémmiñ kon nag li ma la mën a wax mooy réew mi moom kenn mënul feexe ba du soppeeku moom loolu moom suñ borom def na ko ba noppi te réew mi day dox bu yaboo nag ñi nga xamante ni suñu borom def na ni dañ cee bëgg a ñaaw nañ bàyyi nañ bàyyi te xam ni réew moom suñ borom soppi na ko pare kenn mënu ci dara nag te nañ dox ba ci kanam maa ngi dégg nag ay sëriñ taxaw naan ay jomaay ak Sonko danañ xuloo nangam nañ bàyyi seen wax yooyu te dem jàngi jee xam-xam Diomaye ak Sonko seen ànd. man dama cee gis ànd gu dëggu man li ma gis ànd gu dëggu laa ci gis nekkut ànd falaa falaa yi. kon xuloo du dëgg nañ bàyyi ñu liggéey te ñaana leen te bàyyi yàq gi nañ bàyyi ñu liggéey te ñaanal leen ndax réew mi su baaxee ñu ñëpp la baaxal kon nañ bàyyi te bàyyi leen ñu liggéey te bàyyi yàq gi waaye man gisuma seen ànd moom benn jafe-jafe gisuma ko ci mhm. waaw loolu moom man maa ko wax fii. waaw nañ bàyyi wax ji te liggéey waaw. coow li bari na de ci bi bi Sonko falee ministre yi coow li daa bari. waa coow li jarul muy bari ndax soo xoolee ñi ñu fal ministre am na ci ñoo xam ne sax kenn xamul lay woon man sax damay toog ba ci yàgg laajte ni maanaam est-ce que ay technocrates yi amoon na ci réew mi loolu ngay laaj. waa léegi réew mi dañoo bëgg mu dox moo tax ñi war a doxal réew mi lañ koy jox. ñii bu nekkoon ay tappalee na tax a jóg dangay xool ñu bokk seen seen seen seen biir parti bi la ñuy jël waaye ñan lañ ci jël ñu ngi ci jël bariwul kon ñoom liggéey moo leen tax a jóg nañ leen ñaanal te ñun lépp lu ñu mën danañ ko def ndax man maa fi jëloon engagement ne la Bassirou Diomaye Faye day jël réew mi te li tax ma wax ko ku ñu naan xel comme jaaga nekk Espagne moomu woon fay ma xaalisam ngir ci Ousmane Sonko li ma wax nii su ko déggee dina ko xam kon nag duñ toog ba tey ku nekk nag génn na wax waaye man ñi ma jëflanteeloon ci mbiru Ousmane Sonko xam nañ ko te la ma leen waxoon teg nañ ci seen bët kon nag li ci am solo mooy nañ leen bàyyi ñu liggéey dañ bàyyi seen caaxaan yi loolu la am ci lu may wax. jërëjëf Serigne Moussa jërëjëf Serigne Moussa ñu ñëwaat ci wàllu seet ak li saxaar ndax bari na ci ñu bare bare bare bari dañ may woo fu ne ci àdduna bi daan ma boole mag sëriñ musa boole mag sëriñ musa Serigne Moussa tey ñu ñëw ci wàllu seet comme na nga ko doon waxee ñeenti dërëm. nga nekk loo xam te ni moom ngay seet di ci jëflanteeg joomu jaamu yàlla yi ñeenti dërëm ñu bari ne nañu ñeenti dërëm sëñ bi mënul dara ñu ne ko mën ko ñeenti dërëm daa am lu bi di liggéey ba laa gis ci ñeenti dërëm ci wàllu seet boobu. xam nga maanaam wàllu seet li ma la waxoon am na loo xam cosaan la dañ la koy jàngal waaye dañ naan la nangam lay àndal misaal li nga wax nii bari dañ may woo di ko wax waaye sëñ bi moom suñ la wooyee ci wàllu seet nga ne joxel temps boole ci ñeenti dërëm day doy waar waaye ñeenti dërëm yooyu suñ borom def na ni li ma la ciy wax nit du la ko wax ci àdduna ndax suñ boroom def na ne ñaata nit ñoo la woo ni la makankat sëñ Moussa nangam ci wàllu seet dama lay wax ba wax la loo xam ne du dañ seet moom jamono ji moom waxuma ni maa fi mën waaye gisuma ku ma ci mën man ci wàllu seet nag loolu moom yow sax mën nga ci seede ak ñi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan waaw réew mi daal li ñu bëgg mooy nañ bàyyi suñ caaxaan yi te jéem a tegu ci dëkk waaw loolu daal moo ciy la nañ jéem a tegu ci dëgg te bàyyi suñ caaxaan te xam ne wàllu seet moom duma ci wax nit luy dañ man man lu ma la wax takkal téere ci wàllu seet ndax dama ko jàng ba gëstu jotee dama koo dem gëstu ji xam jotee dama koo dem jàng ko ba mokkal ko kon nag maanaam moom seet duma la wax lu ciy deñ te ñi ma woo téléphone ñu ciy jëflante ci wàllu seet suñ ko seetaanee dañ xam ni may wax ndax lii may def nii ñu bari danañ ko seetaan kon xam nañ man maay kan loolu moom dam dootuma ci nangu sax di di di wax ci di ci yaatal waaye nag man neexaluma kenn ku mën a ñëw nga ñëw ku munta ñëw nga toog waaw waaye wàllu seet moom forcé wuñ kenn mu ñëw waaye ku ñëw nag dinañ la wax loo xam ne moom du deñ waaw sëñ bi ñu ñëwaat ci parfum yi nga xam ne da koy joxe mu ne day ubbeeku képp ku ko laal say mbir baax ba faw ci wàllu bayre lay dox ci wàllu ubbiku ci wàllu wërsëg des fois nga xam nit koo xam te dafay yor alal joo xam te ni du toog ci loxoom day dem ci wàllu woowu ana parfum bi ak jëflante bi ndax boobu client yi bëgg nañ ko trop dañ ma koy laaj nag waxal ba sëñ Moussa parfum bi parfum bi ñi ci commandé woon na nga laaj seen wàll. waa xam nga ñi ci commandé woon nee naa leen dañ ma xaar ndax damaa demoon ndogu ya te damaa nekkoon ci yitte nag ndax soo xoolee man a yow suñu émission li ñu koy def sax bariwul ndax mën naa toog yow deux mois yoo xam ne du def ak yow émission ndax li koy waral mooy damay nekk ci aajooy jaam ñi te munoo di nekk ci aajooy jaam ñi ba pare bëgg maanaam di nekk ci leneen kon li nga war a def mooy da ngay fexe ñi la jox seen alal nga liggéeyal leen bañ gis la nga leen liggéeyal ba pare nga soog a jëlaat ñeneen waaye munoo boole ñëpp ñaanal leen waaye ñi nga xamante ne dañoo commandé woon te parfum yooyu ngay wax tama leen waxoon ñu war koo def ci jaaro di ko takk loolu moom képp koo xam ne suñu borom def nga ci am nga ci maam jarutut ngay tiit ci wàllu yëpp nag bu nekkee maanaam dangaa amoon jafe-jafe ubbeeku su ma la ko joxee te ubbeekut bul demee ci sëriñ mm-hmm. na xam ne yow moom bokkoo ci ñi war am yow mm-hmm. waaw parfum woowu mm-hmm. ngay wax te mu ànd ak jaaro yi maanaam képp koo xam ne jox naa la ko te mënatoo ubbeeku jaratul ngay dem ci sëriñ xamal ne yow moom dootoo ubbeeku yow ndax loolu suñu borom def nañ liggéey gi muy laaj dafa jël temps moo tax ñu bari ñu ci commandé woon am na ci ñoo xam jot nañ seen wàll am na ñoo xam jotaguñ ci ndax suñ koy liggéey danañ la laaj sa turu ndey laaj sa tur laaj la ban année nga judd laaj la ma fexe nag jéem a xam sa tabixa yow fan nga bokk liggéeyal la ci liñ la ci liggéeyal ba noppi jox la ko loolu maam suñu borom def nañ soo ko yoree balaa mat une semaine wërsëg moom makan fu nekk lay jógee ci yow soo amul sax da nga jàpp ne ay jinne sax ñoo lay jox àll waaw ci wàllu ubbeeku yooyu <laughs> ba tey nga ma dégg benn slogan booy wax ku aajoom narta faju du ñëw ci man. nga ne waaw man man sëñ Moussa Fall ku sa aajo narta faju duñ gisante waaw man seera faay sama maam te jaayante jaayante dafa baax ci mbir te man damaa jaayanteeg Cheikh Ibra waaw daal képp koo xam ne aajoom narta faju buñ déggante waaw am na ñoo xam dañ may woo téléphone dañ fay bëgg a ñëw waaye ba léegi tegante bët waaw ndax seen aajo narut a faju man ko fu sa aajo narut a faju sama kër gi doof teg sa tànk képp ku fi ñëw nag na nga rafet njort ni sa aajo dina faju mais nga xëy ma gis rang bi ba guddi ngay liggéey bi rang bi nit ñi dañuy wuyu si ba guddi gi ngay feex waaw lan la xam nga li waral loolu mooy nekk ci lu wér rek soo nekkee ci lu wér moom doo tiit damaa nekk ci lu wér tey doxal lu wér moo tax nga gis rang bi ni mu toll ndax jot sax xam nga ne aw ma ko yow jot aw ko soo xoolee mën nañoo def comme li ma la wax émission ay weeri weer soo ko defaat kon aw ma jot li war waral loolu nag mooy maanaam damaa nekk ci lu wér nit ñi di ñëw ma leen di wan lu wér moo tax ñu am fitu ku ñëw indi sa moroom moo tax nga gis kër gi ni muy mel waaye nag bu kenn jàpp ni kat danga may woo ma bañ laa jël wala nangam damay xat dong waaye su ma noppee nag danaa fexe jëlaat sama téléphone woo la daan ne la kat damaa xatoon wala damaa jàppoon luy sa yitte waaw ni nga gis nii ci kër gi ñi ñiy ñi woote téléphone ñoo ëpp ñoom ñi nekk ci kër gi kon nag yàlla moo dogal noonu daal waaw dañ may dañ may woo sëñ Moussa lay jot direct waaw man man moom yàlla def na ni au ma secrétaire mm-hmm. waaw man bëgguma sax maam ut sax secrétaire mm-hmm. man li ma bëgg mooy ku may jëflanteel day doon man ak yow mm-hmm. nga woo ma jot ma direct nag benn numéro dong laa yor xam nga mënoon naa yor numéro yu bari waaye man benn numéro dong laa yor ku ma woo mën nga ci jot soo ma wooyee dinaa na la may ma wala dugalal nangam ñu jëflante su noppee moo waar la téléphone ni la jël si ko wala bu nekkee da ngay ñëw ci kër gi ma tegtal la nga ñëw fi su ko defee nag nga xam ni kii kat li muy wax xam nga sëriñ si ñi am ñi am intermédiaire bari na waaye mel nu man de soo ma wooy man dong ngay jot te man maay wax ak yow ñu jëflante li ñu war a jëflante waaw sëñ bi ba tey li may faral nit ñi di ma ko laaj muy mbokki internet yi mooy ci wàllu rab mu ne jigéen la joo xam te ni saa bu sa tëddee di gént day day saa tëddee di day faral di gis di gént des fois muy see ku mu des fois muy def wala alalam wala des fois mu toog lu yàgg te woo am jëkkër ci wàllu loolu lan la. waaw xam nga rab dafa am ay ay fànn ndax dafa am rab yoo xam ne rawu cosaan la say maam ñoo ko yoroon dem bàyyi ko fi mënuñu ko toppatoo ñu jël tuur ya sànni léegi nag toj nañ tuur waaye rab yi ba tey demut léegi ne rab yaa ngi ci biir kër gi wala nekk ci biir sët yi di leen yàqal mooy faral maanaam nit di jëflanteeg nit ba foog ni noonu la mu xëy suba lépp yàqu. wala nga tëdd guddi comme ni nga ko waxee di gént di seeyee koo xam ne yow si si sa jëm bopp soo yeewoon suba su la jàkkaarloo da ngay ndax ni yéen ñaar ni ngeen mel di ngeen a rusante. loolu nag rab a koy def. waaye suñu borom def na ne soo ñëwee fii gis nga biteel yi may joxe. soo ñëwee waaw soo ñëwee. 15 jours nga tàggoog soo ñëwee nekkee jigéen ju taw am doom. soo ñëwee maanaam fukki fan ak juróom suñu borom def nga wan lool bu nekkee nag góor nga wala jigéen boo xam ne rab moo la sonal fukki fan ak juróom yéen ñaar ngeen tàqalikoo <laughs> waxuma la yow du ngeen yam sax ci tàqalikoo waaye lépp lu mu la yàqaloon da da da da la koy kiiwaat waaw loolu moom suñ borom def na ni moom maanaam say mbir moom ci wàll rab moom soo fi ñëwee moom say mbir dana faju ndax yow gis nga bitee li ñuy joxe te tamit maa am na ci yoo xam ne soo fi nekkee di wax sax su àggee day niru leneen mm-hmm. waaye képp ku bëgg rek da fiy ñëw wala nga woo ñu téléphone. soo fexee ba am ci. di nga xam ne maanaam ñiy faj rab ute nañ. dafa mooy dëj jigéen ba du am jëkkër wala mu dëj góor ba du am jabar. waaw maanaam du yam sax ci loolu. maanaam sa buntu wërsëg da koy tëj. maanaam yow nit ñi su ngeen waroon jëflante ci lu baree baree bari maam da koy yàq. maam yàlla def nañu la waroon jox xaalis ba dig ba nga foog ni tey di nga ci jot soo demee doo jot dara yaa ngi dégg maanaam yow nit ki tamit mën ngeen a nekk ci jàmm nii ba foog ni noonu la desul dul takk mu xëy bala maam bu nekkee góor nga mën ngay liggéey ci place ñu xëy dàq la te doo xam yow lan moo ko waral fekk rab mooy def noonu rab day nekk ci biir nit ci bopp nit di ko manipuler dara sax day am bari yi nga gis koo xam ne day fooye boppam koo xam ne day bàyyi bu guddi jot ñépp tëdd muy xool lu bon di fooye boppam nga gis ñoo xam ne maam moom la ñuy wax mballu di def yooyu rab a koy def su ñëwee ci man fukki fan ak juróom waaw ñoom ñaar ñu tàqali ko bu nekkee jigéen ju teew am doom tam fukki fan ak juróom mu am doom bu nekkee kuy gént moom ñoom ñaar dañuy tàqalikoo da koy baax man suñu boroom def na ni su ma la joxee loolu ci wàllu rab maanaam danga may woowaat téléphone maaw man ku ma ko jox di nga ma waat téléphone ni ma seen bi yeex naa jëflanteeg yow waaw loolu moom suñu borom may na ma ci waaw sëñ bi ku ne xam na ne nag jëm nañ ci bis yu mag yoo xam te ni tey ñu ngi ci làmb bu ñu ko waxee yaakaar naa bu ñu waree ba le 5 mai diggante Sa ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène combat yi bari bari na ay combat Modou bari na ay combat yi nga xam ne moom moo am tey loo ma doon wax ci làmb ak loo may wax ci xale yi nga xam ne ñooy ñëw révélation xam nga man làmb moom yàlla def na du ma ci faral sax di di di xóot waaye nag yàlla dafa def ni dafa am mbër moo xam ni suñu borom def na ni maam suñu borom daf maa wan ay mbiram mbër moo xam ni laax suñu borom daf ma wan ay mbiram. koo xam ni maam yàlla def na ni dafa war a téye roi des arènes. billaahi wallaahi wa taala. am na mbër moo xam ni suñu boroom def na ni daf ma wan ay mbiram mu war a téye roi des arènes te soo bëggee léegi ma wax la tur bi su ñëwee ci man ma wax ko fan lay jaar doon roi des wax ma tur Sa Thiès. Sa su ñëwee ci man ma ko fan lay jaar waxuma la téye roi des arènes waaye sax ku naqaree daan lay doon. li ma la nii nag. na bu doy waaw moom combat moom loolu kombaam la. moo ëmmal seen combat la. waaye man li ma la wax nii suñu borom wan ma ko laa lay wax Sa Thiès ci jëmmi boppam bis bu yàlla defee mu ñëw ba ci man wala mu woo ma téléphone barkeb Cheikh Ibrahima Fall ma teg ko ci code goo xam ni maam suñu borom def na ne waxuma roi des arènes waaye ku naqaree daan lay doon. waaw suñu borom ma ko wan suñu borom daf ma wan ay mbiram fi mu war a jaar yëpp ba li mu bëgg mu am ko bu nekkee nag Modou Lo na jug ci boppam te xam ne combat am bii nii. dafa bari ñu koy sot de. waa ci làmb ci. dafa bari ñu koy sot waaw ñoo xam ne instant yii nii roi des arènes bi ni mu ko téye neexu leen mm-hmm. yaboo nag mu jug bu baax gën a defaruwaat mm-hmm. gën a jàjji jàjjiwaat mm-hmm. te xam ne nag am na komba boo xam ne du moom ak si ta dong de mook amateur làmb yu bari lañu waaw waaye nag lii ma leex nii moom si caasee si moom suñu borom moo ma ko wan waaw moo tax nag mu mën a am taxaw ko ndax man musuma taxaw ci làmb di wax naan nit lii wala laa waaye Sa Thiès moom maa liggéey t yàlla ba suñu borom wan ma ko waaw suñu borom wan ma ko. wan ma ay mbiram. bis bu yàlla defee ñu jëflante man ak moom. dinaa ko teg foo xam ni. maam dana naqaree daan ci làmb yi. su ma wooyee rek mu ñëw fi danaa ko wax ni ko lii ak lii ngay def. mooy say mbir. xanaa moom am na mbër ñoo xam ne makkan maanaam tur yàlla mooy seen mbir. am na mbër yoo xam ne alxuraan mooy seen mbir. am na mbër yoo xam ne nag sunguf ak reen mooy seen mbir. waaw waaye nag Sa Thiès moom bosom suñu borom daf ma ko wan ma gis ko man. te bis bu fi ñëwee mhm. dinaa ko wax nan lay def. Mhm. waaw rois des arènes dana ko doon de. Mhm. waaw sëñ bi waxtu bi xoj nañu ana looy tàggu. waaw maa ngi sant di gërëm ñëpp di di rafetlu émission bi eh, lépp loo xam ne daal wax ji daal lépp loo xam ne jub nañ ci. jub nañ ci ñun nañ xam ne nag suñ jëmm yi xeebu yii la waaye nag lépp loo xam ne maanaam jub na te sell nañ xam ne jëmmi suñu borom la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw numéro bi moo nekk noonu ci suuf 78 416 84 71 képp ku ma woo nag man nga ci jot mm. man sëñ Moussa Fall mm. doo jotaat keneen oo mm. ma intermédiaire oo ma kenn mel nu man dong nga ci jot maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di lu nuyu ñëpp tey ñaanal ñëpp am jàmm jërë ngeen mbokk yi jërë ngeen jëf kooku moo di Serigne Moussa bu maam Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi